Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse. jàngeen jëf campagne bi nga xamante ne li ci des bëreetul yéene kaay yu bëri xëy ci tey réew mi quotidien wax ci meeting bi nga xamante ne moom la waa Pastef amaloon ni ki demb ca Kër ma yéene kaay bi dañu xamal ni Ousmane Sonko mel na ni ku récupéré at ñi nga xamante ni ñoom ñooy marchand ambulant yi ndax seen mobilisation bu takku demb waaye tamit li nga xamante ne premier ministre dig na leen ko Ousmane Sonko yamul digle les échos du ñu xamal ni gannaaw Kër Massar ca Géejawaay ga nekkoon di def meeting bu yaa njiital Pastef waneeti na fa boppam ŋàññ ay doxalin yu nga xamante ne yenn ci ay presse dañu koy def waaye tamit société civile Sonko mel ni kuy défendre tamit ñi nga xamante ne dañuy imposer visa ay doomu Sénégal ñu mën leen koo def ñoom yi tamit bu ñuy dugg Sénégal ŋàññi na li nga xamante ne moom mooy nationalisme donte bëgg na ñu daal di def li nga xamante ne moom mooy identification étranger yi réew mi ci ponk boobee sax le Vox Populi addu di fësal kàddu nationaliste bu Pastef mi jàpp ni ñoom duñu ay nationaliste ci biir yéenekaay bi mu mel ni Ousmane Sonko ma ngay ŋàññ doxalinu Tahirou Sarr donte tuddul turam di ko fàttali ni idéologie nationaliste bëri na li nga xamante ne jur na ko ni ay dégâts ci yeneen réew noonee la gisee ni débat bi waruñu ko saxal ci réew mi ndax Sénégal bëri na ay doomu réewam yi nga xamante ne ñu ngi ca biti réew di fa daan seeni doole moo tax ci yor-yor bi mu mel ni Sonko ma ngay alerter ci danger bi nga xamante ne discours mi fësal li nga xamante ne namm na koo def ci pôle bu ndakaaru ci ay at yi ñu dëgmal ci ndakaaru yi tamit source a di ñu xamal ni démb Ousmane Sonko daal nay feeñal luuxu ak i njombe yu bëri yi nga xamante ne nguur gi fi nekkoon def na ko bokk na ci li ñu ngar daajo woon lu tollu ci ñaar fukk ak juróomi immeuble yi nga xamante ne état moo ko moom te loole jamono ji nguur gi récupéré na ko ba noppi moom premier ministre di weeje ba Ngom yi tamit mi nga xamante ne am lu toll ci ñaari hectare ci foncier bi nga xamante ne moo nekk ci bu Yoff ci ay milliards ci CFA loolu nag Ousmane Sonko nee na ci yéenekaay bi daañu ko càmbar moom Sonko Amadou Ba mayu ko dara ndax ci yéenekaay bi di critique te de bu coalition jàmm ak njëriñ nee na Sonko ak ñi mu àndal daal ay borom pexe lañu ak i génie ci wàllu opposition waaye nekkuñu ay liggéeykat mu mel ni gis-gis gi waroon na ndax ci jamono jooje le témoin mu ngi ñuy xamal ni gannaaw mobilisation yu takku ak ralliement mu mel ni Matam mi nekkoon titre foncier bu Macky Sall jamono ji ci ñàkk ko la bëri wutali nañu Pastef ci législative yi ñu dégmal élection législative yi nag Walf Quotidien gis ni Dakar moom mooy enjeu capital feneen fu am enjeu muy ci jaspora bi le quotidien yéene kaay nee ñu am na ci pexe bi nga xamante ne opposition bi nas nañ ko ba noppi ñu duppee ko schéma A3 jàmm ak njëriñ sàmm sa kàddu naka noone takku wallu Sénégal ab intercoalition lañ ci def mu mel ni priorité bi nag dañu ko jox coalition bi gën a moo xew ci ministère de la santé ci nguurub Macky Sall yéenekaay bi dikk ci li mu duppee chiffre du mal nee na lu ëpp junni ni ay agent nekk ci situation irrégulière lu jege juróomi téeméer tamit agent ñu ngi ci base de données ministère de la santé juróom benn téeméer ci ñoom di agent actif yi nga xamante ne ñu ngi ci fichier solde bi waaye nekkuñu ci répertoire bi ci base de données yi nga xamante ne ministère bi yor na ko daanaka lu toll ci ñeenti téeméeri salarié yi nga xamante ne ñoo ngay jot seen payoor lu toll ci fukki te liggéeyalu ñu benn yoon ministère de la santé rax ci dolli covid bi nga xamante ne dañoo jàpp ni arnaque la woon l'info mel ni ku koy feelu dikkaat ci audit bi nga xamante ne ministère de la santé def na ko te yëgle ni lu toll ci junni ak juróom-ñetti fukki agent ñoom ñoo nekk ci situation irrégulière ci ministère de la santé li xew ci ministère de la santé lu ko raw daanaka moom la l'observateur gis ci doxalin wi ci wàllub suufa mu duppee ko sax mafia à col blanc li xewoon nag ci état bi ab banditisme dëgg woon homme d'affaires bi bi di Tahirou Sarr Mamour Diallo ak receveur des domaines bu Ngor Almadi naka noone gouverneur bu Ndakaaru ak trésorier payeur général bi ay dossier yu baaxul lañu defaroon ngir détourner ay fonds publics nguur gi fi nekk nag jël na yëf yi jébbal ko sûreté urbaine bu ñu ca noppee nag daañu yóbbu yëf yi ca juge bu deuxième cabinet te boo moytul dina ci bëri ñi nga xamante ne ñu leen ci teg loxo ñeneen ñi ñu war a teg loxo libération di ñu yëgal ni mooy ñi laale ak contrat PPP yi nga xamante ne dañu ko signé woon diggante 2016 ak 2021 bi di dikk ci leetar bi nga xamante ne kii jiite woon conseil des infrastructures jébbaloon na ko présidence de la république ci weerub août atum 2019 moom magistrat bi di Ousmane Kane nga xamante ne moom moo waroon signé contrat yooye nga xamante ne dafa ñeel partenariat public privé te yu bëri ci ay contrat daanaka tegu ci bët ba noppi ŋàññoon na ci leetar boobu doxalinu yaama neex gi mu gisoon ni dañ koy def ci wàllub kopparu askan wi ki yoroon kopparu askanub Sénégal Le Soleil yéenekaay dañu xamal ni démb lañu ko jébbal boromam yéenekaay an bi dañu at levée du corps Mamadou Moustapha Ba démb ci hôpital militaire bu Wakam delloo njukkal ak sargal yi nga xamante ne état bi def na ko homme d'affaires yi société civile ba ci sax askan wi nga xamante ne gunge nañ ko ba ca Nioro nga xamante ne foofu lanu ko rob L'As Quotidien ne ko kay démb Sénégal yépp delloo nañu njukkal ki nga xamante ne moom moo liggéeyal état ci anam yu mucc ayib ci jongante Burkina Faso Sénégal ci la Rewmi xëy nikk tey ji yéenekaay bi di kat ci suñu gaynde yi mooy jël ndam li